ca mbokk yi internet yi Siweulko TV comme niñ leen ko wanee woon ci biir rek euh, ànd ak yéen ci ambiance bi nga xam ne tey di bisub euh, juddub ki nga xam ne moo di l'international kenn dootu ko présenté ci réew mi muy Bass Thioung mu woote euh, daanaka li nga xam ne moo di bisub juddub ay mbokkoom ak i xaritam ak am di jàmbam ñëw def daal di koy fekk ci di ambiance ak moom mu neex loolu ci biir nga xam ne moo di ah nee naa la fecc katam foo ko gis ci moom nga koy gis foo gis Bass tamit ci kanamam nga koy gis wala ci ginnaawam moom ki nga xam ne moo di Fadel muy ànd ak moom guddeeg bëccëg ñu war tuuti waxtaan Fadal maa ngi lay char eh, ak kilifa gi maa ngi lay char ku jot eh, bas wala ku la jot rek jot na mel na jot na bas. waaw loolu moom dëgg la ndax mooy man maay moom. waaw moo tax ñu jékki-jékki rek gis la nga fël ñëw wax wax ju rëy waaw waaw parce que um, lu ko jar moo ko jar mhm. te moom da koo jar. muy sama kilifa di sama lépp di sama xarit di sama lépp barke Serigne Touba. waaw moom nag nekkuñu ay feccikat ak ak ak ak waykat mhm. moom ay magaraq lan. dëgg la ñoo ko ñooy ànd chaque jour ñooy nekk mhm. tout le temps waaw. kon tey bisa bi bu ko amee mhm. mi bis bu dellu si ñaan nañ yàlla fekke ko ay at yu at at moom nag maa ngi koy ñaanal yàlla na ko fekke ay déwéni déwéni déwéni déwén waaw loolu laa koy ñaanal ñu dégg say biir wax yaa ngi wax ne maanaam bas daf la jëlee foo xam ne nii tey boo koy toog di xalaat maanaam da ngay xam ne maanaam jëlee na la fu sori indi la fu kawe waaw dafa ma fekk foo xam ne dafa métti fu metti la ma fekkoon barke sëñ Touba maanaam maanaam man avant may xam bass fu ne laa doon tëdd dama doon tëdd ci ay terrasse fu ne mais ba ma ko xamee ba léegi mhm. maa ngi nii léegi macha allah mhm. dama stable yor sama appartement mhm. dëkk nice amaa samay mag dëkk nice dëkk fu baax waaw mu mu sagal ma barke Serigne Touba lu ma xewle mu ngi ci su ma feebaree boo ci njëkk kon kooku aw ma fayam man barke Serigne Touba. mu nekk lu am solo mais Bass moom nekk na ko xam ne kenn dootu ko présenté ci réew mi te lépp lu mu génn tendance ñu gis ne maanaam euh, li nga xam ne moo di bande bi muy def coow lu bari. jamono ji ñu ci bëri fi mu toll nii ah kenn ku ne mi ngi koy bëgg a moomeel sa bopp. ma bëggoon a xam yow loolu yow lan nga ma a wax parce que nee nañ Bass Thioung moomu ko. bandi bi moom moom fii moom àdduna ñëpp ay bandi lan yow mii bandi nga. man bandi laa. Mhm. saa yi mii di ma seetaan bandi la kon ñun ñëpp ay bandi la mhm. waaw. mais Bass moo ko fësal wane ko xam nga Sénégal ñëpp jot ci keneen ak keneen di ko way waaye ba tax na am na si ku ci mel ni Ousmane Bongo génne na nee na moom moo ko moom. non comme moom nee moom ba nañ ko bàyyi rek ngeen ko koy bàyyi waaw nañ ko ko bàyyi yàlla baax est-ce que loolu yombul te génn ko waaye ko fépp ñëpp xam ne yéenay borom waaw ah, mais garaawul garaawul nañ bàyyi noonu rek ah. waaw nañ ko bàyyi nañ ko bàyyi moom rek léegi ñëwal ma ci ba Bastion mi nga xam ne tey ñu ngi dégg ne jóge na li nga xam ne moo di euh, fee ci waaw waaw liggéey la woon rek ñu doon liggéey ànd ak Matar Diop suba teel di liggéey liggéey bi jaar yoon mhm. macha allah mais nag dañoo dem ba gis ni war nañ mën a jël suñu yoon bopp ñu jël suñu yoon bopp loolu kese la dara ñaawul kiiwul mhm. Matar Diop suñu frère la mhm. ba suñu rakam la mhm. kon war na mën a bàyyi dem jël yoonu boppam liggéey ah waaw loolu laa gis man. loolu nga nekkul na ñi wax naan tey ah, Bass Thioung li ko gën a lancé Subatel bokk na ci est ce que yow loolu di nga ko nangu. non Bass daa boppam yéen xam ngeen loolu sax parce que ba muy génnee temps booy ko jàppale kenn jàppalewu ko waaw moom moo ñëw xuusal boppam jàll waaw ba lii tey lii am kon. buñ ne Bassirou Soubatel moo ko lancé. Mhm. jàpp na ci carrière am nag. Mhm. waaw Soubatel jàpp na ci carrière mais instant bii ñu nekk nii. Mhm. Bassirou ku ne xam na ni nag Bassirou la te ñu ngi waajal lu rëy incha allah. Ah. bàyyi leen xel loolu Bassirou mi ngi waajal lu rëy lu nar a dëkk bi. mais man xam nga lu ma jaaxal dafa bëri sénégalais yi naan Bassirou mënul way te lu mu way maanaam challenge la euh, xam ne du jeex kon mi ngi noonu tontu nga alhamdulilah. non man loolu daf maa jaaxal. parce que gars yi ne ma ne xam nga ko mi ngi noonu àdduna fii sénégalais kenn moomu leen lu neex ñu déglu ko lu naqari dañ ko fay baax te seetaanal feeg si kanam lu naqari luy génne ni dañ ko fiy ba lu bees lu gars yi di génne dañ koy déglu maa wax lii tey. en tant tey boo ko doon dolli lan na gën a liggéey gëm boppam xam fu muy teg tànkam tout court bañ a déglu ay wax. du tontu Bassirou du tontu kenn du ti kenn tontuwul tontaanuwul liggéey rek Sénégal jëm kanam. mais yow est-ce que bu la waali woowee doo dem. non man maa toujours Bassirou fidèle